mbokki jullit yi bismillahi rahmani rahim laa uqsimu bi yawmi alqiyamati wa laa uqsimu binnafsi allawwama ayaxsabu al-insan الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه صدق الله العظيم ملتني بكونك الكريم ما خادني تبذير وتكريما أعطيتني ما الخلف أنسى كلما مدى من ندري موت السلمايا كاباني من ماله كفوا أهلا بما لخير سار كل من جاء أكرمني بخلق الأولاد ربي ولم يكن له كفوا ناجاني الله مكرم السما تناجيا به كفاني الكيان وجعل الأكرم أنفى الكرم درري بخير من سريان أسأل كونتي القصيدة خارقة لإعادة مفيدة يا حي يا خيوم مسلم بسلام على الذي جاء بأسر الكرام على الذي جاء بأسر الكرام سل وسلم وتقبل ذا الكلام من على خير سدراف بما يفوق سنة من معروف للناسم يروف خلد ربايا يا من كواب ساخرور ونبايا بسم الله الرحمن الرحيم عبد المؤمن إلى السوانا سسي نرانا ولتكفنا الإرمان والخسران لنا أبي الأمن من المآسي يا من كفاني در كل آياسي منا علينا بدامة الخيار وطيبا لنا من مرد قبل جميع المؤمنين ما يسيد خير فلا يا ربي إنك المشيد يسر لنا يا ربنا صلاة في سر والبلد والفلاح نبيت إبليس ومن والاه لخيرنا كنت لنا يا لاه wa as taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi yépp ci turu am Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda li fi nekkal maam Chanaye Fall bi ñu ñëw nag ñu booleeg doomam sëñ am sëñ Xalifa Fallam sëñ Amdi ak euh, Baye Cheikh Ndaw fekk nañ fi suñu mbokki Baye Fall ku mel ni suñ Mouhamed Fall sëñ Baara Fall Louga ak sëñ Modou Fall moom sëñ Abdourahim ak mbokki Baay Faal yépp sëñ Sidi ñoo ngi lay jot li nuyooyu sëñ Amdi Fall moom sëñ Mourou Mbène mi fi maam Serap Fall tey ak mboolem njabootu maam Serap gépp naka noonu di jaar bu baax di fi texal teewal Cheikh Ahmad Faaral di di sëñ Sërif Mbakke ñoo ngi lay jaar bu baax Mbakke ci turu sëñ Amdi Fall kazalika soxna Kunta Mbakke moom sëñ Cheikh Ahmad Faaral donc koy jaar bu baax a baax naka noonu sëriñ Saalihu Mbakke moom sëñ Mourou Moussa Dieng ak mboolem jabaru suñu fallu gi mu àndal ñëpp bawuñu kenn noo ngi jaar bu baax nag mbooreem couleur yi nga xamante nii ñëw nañ ci Sarsara rawatina fédération bi nga xamante ni ñooy organiser bis bi ak bis yi fi jaar yëpp ci turu sëñ Modou Diop noo ngi jaar bu baax ci turu am Amdi Fall moom sëñ Modou Mbedd na ko noonu ñoo ngi ziar bu baaxit nag njaboot ak maam Cheikh gi nga xamante ni ñoo ñu dalal ñoom lañ fekk ñuy liggéeyal Cheikh Fall naka jekk rawatina ki jiite daayira bi mi sëñ Maajoor Ndiir ak mboolem Baye Fall yi baa ngi sant bu baax di leen jottali ay nuyoo ak ngërëm ak soññee te xam ne nag lépp lu ñuy wootal sëriñ Tuubaa maam Sëriñ Faal ca war a jiitu wane ngeen ko nag ndax li ci ëpp ci Baay Faal yi ñoo yor wàccaay dalab sarsaara ba loolu sëñ bi gis na ko dëkk beet wàllu xéewal yeeg ak li ci aju yépp Baay Faal yee ko yor waaye nag looloo leen war ndax maam Sëriñ Faal kat mooy baalu murid diin ñu am di faal bam suñ Moodu Mbenn nag nee na lu suñ Tuubaa bëgg maam Cheikh dina ko def kon fu ñuy wootele suñ Tuubaa rek na ngeen xam ne Cheikh lañ fay woote fu ñuy wootele suñ Tuubaa ak lu ñu koy mën di wooteel maam Cheikh Fall lañ woo mu war a jiitu ci liggéey booba kon sëñ sëñ bi nee na yéen Baay Faal yi yéen a ngi ci li ngeen li leen war waaye nekk bu leen tàyyi nay mel ni ab soññe la rek lépp loo xamante ni war na fii ab taalibe Baay Faal yi ci war a jiitu la cay dolliku nee na mi ngi fàttali ndigali sëñ mun taxaay ndax Baay Faal amul ndigal nee na ngeen góorgóorlu ci te bàyyee ko xel tabaski yaa ngi jub te Baay Faal ku ne xam ne xitma mooy thème bii nga xamante moom la sëñ bi tànn muy liggéey ngeen waajal tabaski yu baax a baax ak liggéey yi nga xamante ni mu ngi ca dëkk ba bu buñ dee ma nag wax naa leen ko léegi mooy maam Serafal tax ñuy wax ndax daana wax ne. man Ibra Fall day lu liggéey di maye lu ñaq di maye dama ko rus naa koo ñaan suñu borom nee na lu liggéey di maye rek rus naa koo ñaan suñu borom kon bañ ne ko sax sarti Baay Faal ñett yooyu la muy bëgg ak gëm ak jëf bëgg ak gëm ak jëf waaye jëf nag moo ca ëpp doole ndax nee na bàkkaar de bàkkaar yu bari sax astaxfirullah da ko dindi ñu ne ko faal lu koy dindi mu ne liggéeyee sëñ Bàmba mu ànd ak ñàkk wi di tuuru kon ñu xam ne liggéey moo war ab baay faal liggéey moo ñu war te sax ci ak taalibe dolliwaat na te nee na ah doom njàng baax na lool de njàng baax na lool ndax loo gis danga ko xam waaye nag liggéey gën a wóor ndax loo bëgg am ko ñoo ne liggéey moo gën a wóor ndax loo bëgg am ko daane am junni nag ak xam junni lu ci gën boo amee junni de boo xamee junni de doyut waaye boo amee junni nag lu lu junni jar rek mën nga koo jënd kon xam-xam bi baax na lool waaye liggéey nag moo jiitu rawatina yoonu murid bañ na ko sax sëñ bi dafa wax jaamu yàlla ak liggéey daanaa doom jaamu yàlla baax na ndax dana tax am yërmande suñu borom waaye liggéeyal yàlla nag dana tax am ngërëmal yàlla kon liggéey loolu sëñ am di faal di soññee ci taalibe yi ak ak maandu am na ci message boo xam mënut ñàkk nag ñu jàllale ko muy lan melaw Baay Faal lii lépp mooy li mu war a def waaye melaw yi dafa am solo nag dafa am solo Baay Faal bayre bi nag xañ na moo bari bayre moom bari na lool ba ku mu neex nga dugg ci biir ba tuuma ji yaatu lool na xam nag sarafaal ne na a doom ah tuuma baax na ndax dana tax a jàllale góor yàlla waaye nag tuuma ju dëgg a tax ñuy wax am na ci loo xamante ni ñu ci ëpp ñoo ngi koy jëfandikoo fekk ne dañuy tuddoo serafal rek te bokkuñu ci serafal nag serafal nag yaatal moo ko tax a jóg ndax Sëñ Tuubaa nee na ah Ibra Faal yaa gore Ibra yaa gore damaa yor soo mbir denc ko ma yaakaar ne kenn du ko xam ngay lëñ lañu di lëñ lañu ba ñëpp xam ko ma jàpp na ba nga ko xamee nag dangay yemal moom ndax neexaay ak njariñ yi nga jéebaane ko ba ñëpp jot ci kon nag maa ngi soñ sama bopp di sama soñ sama mbokki Baye Fall ne xam ne baay Fall duy caaxaan Baye Fall duy caaxaan kuy tux wala ngay naan wala ngay sàcc wala ngay def leneen lu lu rafetul da ngay tuddoo Cheikh Fall dong waaye leen dara Baye Fall mooy bàyyi lu bon bëgg lu baax kon nañ xam ne melo yi mën naa yaatu lool bëgg gi mën naa yaatu lool waaye nag Baye Fall lu Sëñ Tuubaa digle ci la ne lu suñ sëñ taxaa bëgg ci la sëñ Amdi Fall du Mbend ne lu mu bañ loolu la bañ lu loolu nag lu loolu nag bokku ci yoon wi am na ci ñoo xamante nag dañoo nuru Baay Faal di wër di ñëw ba ci gànnaar gi sax am nañ seetlu boobu seetlu nañ ko di takk ay jaaroo di takk ay long-long di takk ay lam yu kenn xamut ñu tudd ko ay buumi jaam yi di xeeñ xunn di wër di kar nit ñi di màjjal loolu ay tapp la ay caaxaana loolu du Baay Faal am Amdi Fall nee na loolu bokku ci yoon wi serafal sëñ Tuubaa lu baax dong mu la am lu baax bu bu se bu se bu Baye Fall sellutoon sëñ Fallu du nungoo doon a Baye Fall te sëñ Fallu nee na moom Baye Fall la waaw njaboot sëñ Fallu gi fi nekk yëpp xam nañ li may wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu gannaaw bi sant yàlla subhanahu wa tey ak ëllëg sëriñ Tuuba di sant maam Cheikh Ibrahima Fall comme ni ko sëriñ Modou Manda waxee léegi di sant chef de délégation bi nga xam ne moo bàyyi ko Touba ci Cheikh Mountakha Cheikh Mamadou Mountakha xalifatul am muy seen Sërif Mbakke ibnu Cheikh Mamadou Fadal jiite délégation bi nga xam ne moo jóge ca sëriñ Abo Baraka xalifa sëriñ Fall yàlla na fi yàgg loolu ci wér ñoo ngi nuyu sëriñ Sidi Mbacke Mourtada moom mi nga xam ni moo yor kaddu Cheikh Mamadou Mountakha fii ci Mauritanie ak li ko wër ci lu leer ñu dellu nuyoo délégation bi nga xam ne ñoo fi teewal sànq ànd ak moom ki ci jiital di monsieur l'ambassadeur c'est di Moustapha Ndour di ko am yar am teggin xam li muy wax xam li muy jëf ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci ambassadeur bi rek yoroon na ko jukkal bu ñu sañoon maanaam gouvernement bi bàyyi la fi 10 ans ndax sa jëf ci Sénégalais yi ak ci jëf ci lépp loo xam ni ñu di soxla nañ ko ci yow di nuyu représentant xaadir yi fi toog ak xabile yi nga xam ni ñooy am kóllëre ak sëriñ bi bi ci jiitu di sëriñ xaasu misri bu maatam wulaani xam ni ba sarsaaray door ñu nag moom la woon xaasu misri ba Sarsara di door ñu nag moom la woon ba buñ fa daan jógee di fa dem képp xéewal yoo moo moom la daan jëfandikoo moo la taalib daan jëfandikoo moo ko gàddu ak xayma ya ak lépp moo la ko daan defal ban agsi fii tey ba léegi bàyyiwu ko barki démb lañu jógee këram ca maatamu laa kon yàlla na yàlla yu guddal fanam wéral ko ñoo ngi sant délégation bi nga xam ni moom la sëñ Abou Baraka yabal sëñ baa leen sant bu baax ni ma ko wax ni ma ko sëñ bi waxoon sax mënu ma ko wax ndax nee bu suñu sëñ Aboubacar Baraka délégation bi mu tànn bu ci tànnoon kenn rek kenn rek bu ci tànnoon mat na ko ndax sëñ Fallou mu ngi fépp foo dem gis nga sëñ Fallou ndax sëñ fàllu moo ne mooy Sénégal waaye délégation bi ko sëñ Aboubacar yabal nee na moom gis na ni bépp na ci moo ko waa fédération bi yépp ñu ngi wax nag ci kàddu sëñ Mujjub Diop dañuy waxal mooy président fédération bi moo ko jiite actuellement ak mbooleem ñi ko jàppale ci fédération yi kon képp koo xam ne yàgg ngi fi di jullit sëñ baa ngi lay gërëm di la sant ci 19e édition bi nga xam ne mooy Sarsara nee na bëgg na ci lool ndax lii nga xam ne gis na ko ci bi mu dalalee tudde tur bi maam Thierno Ibrahim nii la mel bi mu ko waxee maam Samba mu ko tuddee sëñ ma sàmba nii la mel bi mu ko su tuddee Baabul diina da ko rawat saa Ibra Faal bi ko tuddee nii la mel kon nee na mbokk yi sëriñ sëriñ bi nee na ñu ngi sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoom la bokkal Mbàkke gi fii ñu mbokk moom fii ci gannaaw ci gànnaar te xataluñ ko yaatal ko di ko déglu mi ngi sant mu ngi leen sant ñoom ñëpp rawatina sëñ Amidou Mbàkke ak ñëpp koo xam ne yaa ngi sant wala yaa Mbàkke wala ngay busu wala nga jàll ko ci àll bi sëriñ bi nee na mi ngi lay sant ci turu yëpp fédération bi nag sa fédération Seexul Xadiim sëñ ma Jóob nee na mi ngi sant waa organisation bu baax di sant waa finance di sant waa culture di sant it fédération des femmes ndax lu am ñoom ci njiital Xadi Njaay Xadi Njaay nee na sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu wér ndax gis na taxawaay bi nga taxaw ba ñëpp topp ci yow jàppale la ba sasaarem leen xaalis bu bari la daal la ñoom jigéen ñi jox ko ngir mu def ko ci sarsaara kon sëriñ mi ngi leen sant sant bu am bu am commencé waaye amul fu mu yem cheikh chérif mbàkke ibnu cheikh mohamed fadel représentant en mauritanie du khalife général des mourides chers collègues ambassadeurs membres du corps diplomatique, distingués invités, chers amis, frères et sœurs en islam, chers compatriotes, assalamu alaikum wa Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa pour la faveur qu'il nous accorde de nous réunir encore une fois à l'occasion de cette cérémonie marquant la clôture des activités de la 19e édition du Magal de Sarsara. Je voudrais ensuite, au nom de l'ensemble de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, souhaiter à Cheikh Sherif Mbake Ibn Serigne Fallou Mbake la, la chaleureuse bienvenue ainsi qu'à la très forte délégation qui l'accompagne, et lui dire combien nous sommes à la fois honorés et très fiers de l'accueillir en terre mauritanienne. Je remercie vivement mes collègues ambassadeurs, membres du corps diplomatique, pour l'amitié qu'ils nous font de rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Mesdames et Messieurs, Comme nous le savons, le Magal de Sarsara est devenu, au fil des ans, un rendez-vous religieux incontournable. Nous en sommes cette année à la 19e édition. Le Magal de Sarsara, c'est d'abord un moment de recueillement, une occasion pour la communauté mouride de commémorer le séjour de cinq années Passé en Mauritanie de 1903 à 1907 par Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rasoul, séjour durant lequel il reçut le fameux wird Mahfouz ou wird Mourid. Mais c'est aussi un moment de réflexion, une opportunité pour revisiter et magnifier son œuvre multidimensionnelle redécouvrir, redécouvrir la richesse de ses enseignements, s'inspirer de sa pensée, mais aussi et surtout ancrer dans nos comportements quotidiens les valeurs spirituelles et morales prônées par le fondateur du mouridisme. C'est le sens même du thème qui est retenu chaque année Celui de cette édition nous invite à réfléchir sur la hitma dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. La hitma, qui est un terme très, très dans les milieux soufis, signifie entre autres rendre service à quelqu'un ou exercer une activité dans l'espoir d'obtenir uniquement l'agrément de Dieu et non pas un gain matériel personnel. Comme nous le savons, le mouridisme se définit comme une aspiration à Allah, conformément au message prophétique. Mais c'est aussi une sanctification du travail et de l'effort, soutenue par une philosophie, soutenue par une philosophie profonde qui dépasse le gain matériel. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que le parrain de cette édition, cher Mohamed Fadel Mbake, plus connu sous le nom de Serigne Fallou Mbacké, est une incarnation des valeurs spirituelles et morales du mouridisme que j'évoquais tantôt. Je voudrais rendre hommage à cet érudit, à ce grand érudit, cet homme multidimensionnel, connu pour sa soumission inconditionnelle au chef, qu'il était loin de considérer comme son père, comme un père, mais plutôt comme un guide spirituel, comme son maître. Il était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. Borom Naam Moam. Deuxième fils et deuxième calife de Cheikh Ahmadou Bamba, de 1945 à 1968. Il a poursuivi et achevé les travaux de la grande mosquée de Touba dont il eut l'insigne privilège de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et la première prière. L'anniversaire de sa naissance, le Kazu Raja, est un événement religieux pour la confrérie mouride. Mesdames et messieurs, de cette 19e édition, je voudrais, au nom du chef de l'État, du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, exprimer mes remerciements à tous ceux qui y ont contribué. En premier lieu, Serigne Sidi Mbake, représentant du Khalif général des Mourides en Mauritanie, et à travers lui, l'ensemble de la communauté mouride en Mauritanie pour son dévouement et son engagement. Les autorités mauritaniennes ensuite pour leur soutien constant et précieux et pour les dispositions prises et les facilités accordées en vue du bon déroulement des activités, ce qui traduit la qualité et la profondeur des liens séculaires d'amitié et de bon voisinage qui lient le Sénégal et la Mauritanie. Le Magal de Sarsara est le reflet fidèle de la dimension spirituelle et religieuse de cette relation privilégiée qui contribue au rapprochement entre les peuples sénégalais et mauritaniens, frères et amis. C'est pourquoi j'aimerais conclure en élevant des prières ardentes pour la paix et la stabilité au Sénégal et en Mauritanie. Car la paix constitue en réalité notre principale richesse. Et sans elle, rien n'est possible. Puisse Allah dans son infinie bonté, répandre ses bienfaits sur nos deux pays et sur toute la Oumma islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا qaala taala inna haadihi ummatukum ummatan waahidatan wa ana rabbukum fa'budun ينعقد موسم الصرصار في نسخته هذه التاسعة عشرة تحت شعار الخدمة لتعاليم الشيخ الخليل وقد اخترنا أن يكون الشيخ محمد الفاضل ابن الشيخ أحمد بن رضي الله عنهما الخليفة الثاني للطريقة المريدية هو الشخصية العامة وهو أكبر مثال للمريد الصادق وقد جسد الخدمة بقوله يخاطب شيخه ووالده مولانا الشيخ الخديم رضي الله عنه بقوله بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحظى بخلق العادة من بعد ما اشتريتموها مني أهديتها لكم بغير مني hada cheikh alladi afna umrahu kullahu fi xidmati lislam wal muslimin wa laysat aljuhud allati yaqumu biha ibnuhu alxaadar maana cheikh Cherif Mbacké illa tajsidan lilmaqula hada shudd min dalika alasad فالطريقة المريدية تقوم على العلم والعمل العلم والعمل الجوهران من خير الدارين يجمعان يقول الشيخ أيضا إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد إن الثرثارة تمثل رمزا للعلاقات الأخوية الراسخة بين موريتانيا والسنغال ثرثارة تلك البقعة المباركة التي يقول فيها الشيخ الخديم حمدي وشكري لمن كبيته صار له رضا من سخط عن سمسارا له ثناء ورضوان بلا سخط مفتاح لي من بني ديوان انصارا لله يكون لدى ابار مكرمه منها تحلى وفيها جم من زارا ان الذين الى سمسارا قد قصدوا زيارتي فار الى غير زارا لكم هذا الخطاب قبل ان نهنئ انفسنا يهنئ الحكومة والشعب الموريتاني على اختيار مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ليس ذلك غريبا فقد ظلت شنقيط عبر العصور منارا للإشعاع العلمي في العالم الإسلامي وأتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الموسم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على بلدنا موريتانيا والسنغال بالأمن والعافية والازدهار وسائر بلاد المسلمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى خديمه وعلى بركات الله أعلم اختتام موسم صرصار المبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمته المهداة سيدنا محمد رسول الله wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad asxaab alfadila alulama walmashaayix asxaab alsaada alsufara safir almamlaka almaghribiya safir jumhuriyati Gambia ممثل سفارة جمهورية تونس سيد سفير السنغال في موريتانيا صاحب الفضيلة الشيخ ماحي حفيد شيخ إبراهيم نياس أيها الإخوة المنظمون لهذا الملتقى السنوي المبارك أيها الإخوة المريدون أيها الحفل الكريم بإذن من سماحة الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للمريدين وبمباركة منه وهو يهتم كثيرا في هذه الجلسة لأنه اتصل بي تلفونيا أمس وهذا يدل على الاهتمام على مدى اهتمامه لهذه الجلسة ولهذه الفعاليات إذا بإذن منه وبمباركة منه وبالنيابة عن الشيخ أبي بركة خليفة الشيخ محمد الفاضل وباسم أسرة الشيخ الفاضل وجميع المريدين والمحبين أزف إليكم تحية مباركة من الشعب السنغالي الشقيق الذي يربطه ببلاد الشنقيط وشائج القرابة وأواصر المحبة وقد ظلت هذه الروابط راسخة والشامخة على مر التاريخ أيها الإخوة لقد كان الشيخ الخديم رضي الله عنه يصرح كثيرا بمحبته لبلاد الشنقيط وكان يسميها أرض الصالحين ويتضح هذا الحب جليا في بيتين له يقارن فيهما بين الغيبة البحرية في أواسط أفريقيا والغيبة البرية في موريتانيا فقال في الأول بايعته في البحر تحت الشجرة والبحر مزبد وحولي فجرة وقال في الثاني بايعته في البر تحت الشجرة والجو طيب وحولي بررة أيها الإخوة الكرام تعرفون جيدا أن الشيخ الخديم رضي الله عنه مكث في هذا في هذه البلاد أربعة أعوام تحت وصاية الشيخ سيديا من قبل الإدارة الاستعمارية وقد أقام خلالها في أماكن مختلفة نذكر منها أدباي قرب المرايعة ثم تنت مغزين ثم استقر في السرسارة التي كنا فيه أمس وبعد ذلك أقام في الجرارية بئر الخير وأخيرا في سهوة الماء ويسميها العامة خماك أيها الحفل الكريم خلال إقامة الشيخ في هذا المكان الطاهر صرصارة وفد إليه أعيان القبائل ووفود العلماء والصالحين وهناك في صرصارة تلقى ورده المبارك المأخوذ من الله تبارك وتعالى بواسطة بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وشاء الله أن يكون أول من لقنه إياه العلامة العارف بالله المريد للفاني في حب الشيخ وهو الشيخ أحمد بن حسن بن حمادي الحسني رحمه الله تعالى هذا وتحت الصرصار مكانة عالية fi qulubi lmuridina li wurudi ismihi fi kitaabati cheikh alxadim id yaqul xamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara وتتجلى هذه المكانة في انتشار اسمه في الأوساط المريدية حيث أن بعض المشايخ يسمون قراهم بالصرصارة رغم المسافة البعيدة بينها وبين العمق السنغالي ويوجد في صرصارة لحد الآن بعض الآثار المعروفة كالآبار التي يشير إليها الشيخ في قوله لله كل لدى آباء مكرمة منها ارتحلنا وفيها جم من زار وقد ربطت علاقات وطيدة بين الشيخ وبين زعماء القبائل وأقطاب الزوايا كما أسلفنا مثل الديمانيين والحسنيين والعلويين والتندغيين واليعقوبيين والكمليليين وغيرهم كثير أيها أيها الحفل الكريم لقد نسج الشيخ محمد الفاضل على منوال شيخه ووالده الكريم فكان عالما بكل معنى الكلمة تقيا زاهدا حليما صبورا لين الجانب سخيا متمسكا بالكتاب والسنة وقد أقام في أرض الشنقيط مع سنوه وأخيه الشيخ محمد المصطفى خلال غيبة الشيخ القديم البرية fa kaana li tilka al iqaama kabiru al athar fi takwiinihim al ruuxi wal ilmi wa lahu kadalika alaaqatun axawiya saabiqa bi ixwaanihi al mauritaniyin fa kaana yataxaddasu yataxaddasu alxassaniya bi talaaqatin mutanaahiya wa kaana shaaciran mufliqan yatadawaqu alshacra wa yantaqidu وقد مدحه الشعراء السناقطة بعشرات القصائد الرائعة ومن أشهرهم الشيخ أحمد بن حنبل الحسني الذي له 21 قصيدة في مدحه ومنه المختار بن أحمد الحسني ومحمد يحيى الجكني محمد ومحمد بن مختار بن المعلى الحسني ومحمد عبد الله العلوي ومحمد عبد الرحمن السالك الحسني ويربو عددهم على العشرات وجدير بالذكر أن بعض أقطاب المريدية تعلموا في هذه البلاد ومنهم الخليفة الحالي الشيخ محمد المتقى حفظه الله أيها الإخوة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الوفد المرافق لي فإن أسرة الشيخ أحمد الحاج محمد الفاضل متمثلا متمثلة في خليفته الشيخ محمد أبي بركة تتشرف بإسداء الشكر للجنة المنظمة وفي رأسه وفي رأسها السيد الشيخ سيدي مكة ولجميع الإخوة الساهرين على فعالية هذا الملتقى العلمي الروحي wa nasalu llah an yuwaffiqana jamian lima fihi alxeyr walsadaad wa taxiyatan xaalisatan min acmaaqi qulubina lilshacbi almuritaani alshaqi wa natamanna lahu mazidan min altatawuri waltaqaddumi walraxaai walizdihaar fi dilli qiyaadatihi alxakima wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilah alladi yusalli هلا نبي منتقى مسلي صلى وسلم عليه في الآل وصحبه ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بسلام ak kéemaan yi mu fi def ak jaloore yi ak boole lislaam gi mu boole ci Sénégal ak yooyu yëpp ca moom Lamine xëy na euh, ñu bëri ci sunu maas gi sax jotuñ ko xam waaye lim bàyyi rek ci ay jeexit ci kaw suuf doy na ci xam kéemaan gi mu doonoon ak li mu bind euh, loolu ay kéemaan yu rëy rëy la donc euh, euh, ñu ngi koy seddoog ñëpp ñu xam ne daal édition bii di ñëw incha allahu fas yéene nañ ko fàttalikoo Cheikh Mamadou Amine Bara ni ñu ko defee ren. bien sûr waaw thème yi saa su nekk day am exposition boo xam ne exposition bi moom xam nga dafa am à te dina am thème culturel boo xam ne. buñ ci eggee waa ansaaru diin ak ñi ñu ko seqal dinañ tànn xool càmbar ban thème la ñuy tànn féetale ko ci waaye parrain bi daal mooy Cheikh Mouhamadoul Amine Bara ginnaaw bi ñu jógee ci magam ju tedd ji di Cheikh Mouhamadoul Fadal Hamdi wa